waaw ku caa loolu dëgg la de man de du ma complexé du koo xam ne wax dëgg yàlla damay bañ a am ay problème de de de de de parler français ndax du lu ñu nàmp ñun duñu lu ñu nàmp de français gi ñuy wax nii dañu koo jàngal doom du lu ñu nàmp man na duma ci am complexe nag waaye nag dama doy wax ta taala rek ne ko grève de la faim jaru ko ndax boo grève de la faim maara day taani ba sa bakkan yem ca ñun parti ba fa lay yem man nag wax dëgg yàlla campagne mille 2012 bi dama koy teel a tàmmali parce que tamit bu fekkee ne taala tamit dafa bëgg a jël bakkanam bii rek teg ko ci xott gerte nara a de fin ba ba maar day taani am ci ñun duñu ñu xamati fu ñu jëm balaa boobu numéro 2 parti bi jigéen ñi ñëpp xam nañ ne man muslim ba muslimeen na duma ma ko complexé léegi nag barki démb ba dégg naa ñuy bind ay journaliste di bind ne yenn politiciens yi sax balaa ñu leen di takkal ndombo tànk war nañoo mën a xool ndax mën nañoo exprimer wu ca français war koo mën a bind man nag la ma jàng rek ak la ma yaakaar ne moom laay dégg nit ñi di ko wax ci laay mën a dem ca tablo ba def ko ca ci bañ cee am complexe député ci assemblée nationale laa nag dinaa dégg des fois ñuy wax projet de loi ma yëkkati des fois ma wàcce des fois ma sànni sa sama grappe de sel maa ngi dem ca tablo ba <laughs> taala silla taala silla lool moom neex na bind ndax ku yàgg ak taala xam turam taala silla mane taala mane taala taala taala maa arrêté taala maa ma ne ko taalama taalama arrêté taalama arrêté saa gereew taalama arrêté saa gereew ma ne ko taalama arrêté saa gereew ma ne ko taalama arrêté saa gereew defee defee saa gereew defee ma ne ko taalama taala taalama arrêté saa saa gereew defee ma ne ko taala ma arrêté sans grève de faim message bu may yónnee taala rek mu xam ko dama koy bëgg a xamal ne ko na arrêté grève de faim bi kon taala ma arrêté saa grève de faim ma ne la bato ma ne la bato ma ne ko la bato la bato paar la bato paar la bato paar ah musle koste <laughs> mu ne ko la bata faar musle koste de de damaa ah, tëb naa de la bata da taala la bata da taala damaa tëb la bata da taala paar musli koste <laughs> ma ne ko la bata da taala paar musli koste taala maa maa arrêté saa gerew de fin la bata da taala paar musli arrêté les femmes les femmes ma ko les femmes de les femmes de de sa partie ma ne ko les femmes de sa partie <laughs> lii de xam naa bu ko taalee lii de ba gis ko dana nu muslim yi wóolu naa ko bu ma demee ba mënatuma bàyyi ko ak parti bi ma ne ko taala maa arrêté saa grève de faim la bata da taala par musti costé les femmes de sa partie nga ne ko les femmes de sa parti mais les femmes de sa parti d'accord nga <laughs> ne ko les femmes de sa parti d'accord parti d'accord ngir ngir ngir de tubaab la ngir ma ne ko ngir waaw les les de sa parti d'accord ngir musli ma ne ko ngir ngir musli ngir ngir musli koste <laughs> taala de dina xam ne billaay bu weesoo moom parti bi jigéen bu ko jiitee bu demee assemblée wara mu dem primature wara mu nekk président dina mën a tenir discours taala maa arrêté saa gerew de fin le bateau de taala par Mously Costé mooy man mii les femmes de sa parti d'accord ngir musli Costé <laughs> ma ne ko wax na assemblée générale assemblée ma ne ko assemblée ma ne ko assemblée générale générale ma ne ko assemblée générale des femmes <laughs> ma ne ko des femmes des femmes soxna eh, Bambi waaye yow ma ne eh, ma laajal ma xale yi boo eggee ba ci musli costé l'assemblée des l'assemblée générale des femmes ni ñuy waxatee waaye fal ne ko sa tante musli mooy laaj fal nuñ koy waxee ci tubaab balaa muy ñëw sama xoolal sama bopp taala ma arrêté ça géréw de fin le bateau de taala part musli coste les femmes de sa partie d'accord ngir ngir musli costé l'assemblée générale des femmes des femmes waaye waaye fal waay ni ñuy waxee fal ci tubaab waay mu ne ko waay Adja Bambi yow doo dimbale ci fal ci tubaab ni ñu koy waxee fal laa la illallaah moo taxit naan kiis baax bu doon tuubaala bañ jox la kiis nga naan loo bind xam ko ndax doo juum <laughs> ma ne fal nuñ koy waxee ci tubaab waaye fal ma ci sonn les eh, nii la ma ne ko les femmes de sa parti d'accord ngir Mously Costé l'assemblée générale des femmes fal <laughs> ma ne ko des femmes fal fal ba ngay def ENT rek <laughs> waaw fal waaw fal Mously <laughs> waaw fal Mously ma ne ko bonne guérison ma ne ko bon guérison bonne guérison bonne kéri ma ne ko bon guérison ataala ma ne ko ban guérison ataala ma ne ko ban guérison ataale bon appétit ma ne ko bon appétit ma ne ko bon appétit appétit appétit na appétit la rek appétit na nga ko dégg nga ko appétit doon appétit léegi nag bu taala jógee ma liiral ko lii dara xam ne ne jigéenu parti bi am nañu jigéen bu motam góor taala maa critiqué taala maa arrêté sa grève de faim la bata taala par musli koste les femmes de sa parti d'accord ngir musli koste l'assemblée générale des femmes fal musli bon bon waay waay boo a taala bon appétit <laughs> ma ne ko boo guérison a taala bon appétit <laughs> loolu rek la woon de yaakaar naa ne lii moom mooy wane ne jigéenu parti bi jàng ak ñàkk jàng loolu amu ci solo la nga dégg te mën koo bind ndax lii ma bind nii tey may doomu bawal xam na ne la ma ca la amul benn jigéen bu nekk ci parti taala si laa bi mun a jëlal sama place ndax assemblée yëkkati projet de loi yëkkati loxo rek taxul nga mën ko lii ma bind nii tey nga xam ne ne wax dëgg yàlla bu doon taasu la su amoon mbalax kenn du ko dàq ndax taalamaa ki taalamaa arrêté sa grève de faim le bateau de Talla par Mously Costé les femmes de sa partie d'accord ngir Mously Costé l'assemblée générale des femmes fal Talla bonne qualité taala bon appétit <laughs> waaw mu nekkoon musle mi nga xam ne député la ca assemblée nationale di wax na nag defante bi ñëwagul ndax bu élection yi jotee ba ñu war a wax